presse Tëngéej sorti na fi booy dugg. Mhm. cité yi nekk à côté daanaka. mais xam nga foofu. yow xam nga fa nga dëkke ah sama Tëngéej. yow xam nga ne foofu tout le temps day tooy bàq la. waaye mhm. foofu moom wax fa dëgg zone la ba nga xam ne ah. day day day foofu mooy gën a tooy. côté bi fii fii fii côté bi daanaka. mais vous savez cette zone là mais ba tey foofu zone zone ndox la. ba léegi vous savez cette zone là. je fais partie des reporters. Euh, euh, euh, délégués pour aller couvrir quand on donnait cette zone à des enseignants. sous Moustapha Sourang hmm? c'était pour les enseignants la zone d'aménagement concerté de Mbaozac je fais partie de qui avait couvert cet événement et c'était le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement de l'éducation nationale qui a été envoyé tribune yéen a kaay ne hmm? waaw tribune yéen a kaay ñoo nekkoon ci biir waaw treize ñoo ñoo ne ñoo nekkoon ci xam ne ñoo ca loru juróomi dañoo faatu tarf bu ma brek waxuma la xam ne nekk étage juróom ñoo faatu ci biir six rescapés yi nga xam ne daan daanaka ci suba gi lañ leen taxaw am na si koo xam ne ci guddi gi lañ koy doog a génn. di laay. parce que tax boo leen xoolee nu mu màbbee nii uwa la. ci yàlla. ouvrier yëpp nag dañu coincé woon ci biir. looloo sabab nag li nga doon wax sànq faw ñu def assise si wàllum tabax yi. c'est important. la sécurité des bâtiments remise en question. Ah. yéenekaay bi dikk na si dinaa ñëwaat euh, ci euh, yéenekaay bi di. Euh, tribune l'observateur daal di dégg effondrement bâtiment ba sa tëngéej tey nag tëngéej moo yëg ci kaw tribune bi cinq ouvriers ñu nga xam ne ni daanaka ñoo faatu ci bâtiment boobee nga xam ne moom moo mbabb rescapé yi daanaka am na si juróom-ñaar yu nga xam ne nii ay blessé léger lañu donc ba tey jëlee nañ ci ay gaañu gaañu wax ay ay ay ay ay xoosu xoosu les identités des victimes et récits des témoins yéene bii di euh, l'observateur daal dina ciy dikk ba tey nag euh, ci taax moomee le quotidien yéene kaay nee na sax mbaaw la xewee sa tëngéej effondrement d'un euh, batiment juróom ñoo sa faatu moom la ñu tàjjee juróom-ñetti jële ci ay euh, euh, gaañu gaañu ba tey yéenekaay bi daal na ci daal na ciy dikkaat ci tax moom nga xam ne moom moo moom moo màbb ani beneen yéenekaay moo ci dikk te keneen ko waxaat ci taax mi parce que tey tëngéej moo aye te xeetu ay sax ñun bëgguñu ko moom wax fa dëgg na xeala xeetu ay ñun bëgguñu ko njombe li le regard yéenekaay ne xanaa doo leen xool ndax Rufisque la xewee. cité Cypres effondrement bi nee nañu mi ngi xewee foofee sa Tëngéej kër la ku nga xam ne ni dañ ko nekkoon doon defaraat modifié réfection am luñ si doon defaraat. ngay rafistolé sa kër ay nit nekk ca. nga mën ouvrier ñoo ko doon def. amul ay nit yu fa dëkkoon. non non ñoo ko doon defaraat. kër kenn newu fa woon. am na ñu fa nekkoon parce que ñoom déjà nee nañ. 15 nit ñi ngi woon ci biir. waaw effondrement kër gi nee nañ dañ ko doon defaraat. Mais, mais récemment, au niveau des parcelles, il y a un bâtiment qui s'est effondré en portant une femme et sa maman. Ah, okay. Ça une fait dalle, pas longtemps. Une, femme et sa maman. Une dame qui était, médecin ici à l'hôpital Abbas Ndao et sa maman qui était venue en ah. vacances des États-Unis. Ça fait pas longtemps. Mais est-ce que ñoom dañ doon defaraat. C'était le même scénario. mais Touba. la maison était en reconstruction. ñu toog di reer mu màbb seen Touba la yàggul de li ñu andi nañ ko tës il faut des assises du bâtiment mais le ministre de l'urbanisme dem na foofu ah, de la construction dem na ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur mi ngi fa woon Birane Faye ah d'accord Birane Faye ak gouver ak parce que c'est c'est c'est ça relève de leur compétence hein ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur Birane Faye ak gouverneur bi ak gouverneur bu Dakar non là ak gouverneur bu Dakar ñoom ñaar protection civile ñoom ñaar bii xibaar bi tibee dem nañu. Hmm. dem nañu def constat bi. ay te la ñu nag. moo di juróom ñoo ca faatu gannaaw bu ñu seetee liñ ba gis gis nañu ni kon juróom ñoo ca faatu. ña sa des jële ci ay gaañu gaañu beneen constat bu nga xam ne def nañu ko beneen constat bi nga xam ne maître Ciré Clédor daal dina koy def mu ngi ci point actu waaye laata ñuy jóg point actu sax mi ngi nii leen na partaay yéene kaay maître Ciré def na beneen constat moom ci wér-gu-yaramu kii di Ousmane Sonko moom mooy avocat bi moom maître Ciré Clédor yu xooti na wàllu nee na fu mu nekk nii Ousmane Sonko situation bi dafa critique jéggi na dayoo 22 août bii passé rek dafa dem ba mënatul dara mm. Ousmane Sonko mënatul woon dara ba pare ñoom dañ leen doon bañ dañ autorisé ñu leen pour ñu gis seen client médecin personnel am sax bëgguñu woon mu gis ko nee na loolu moo leen tiital yéenekaay bi ci boppam l'indépendant di ci des ba tey gannaaw ba deux minutes essentielles sampaaw laaj nee na ko nag maître maître bu fekkee dafa feebar sa client wax ñu lan moo ko dal parce que tamit wote wàllu yomb na lool mais wax ñu lan moo dal Ousmane Ousmane Sonko l'indépendant yéen kaay maître daal di ko ciy tontu. nee na ko la. dikk na ca de anamu son état est encore aggravé bi nee na taux de glycémie bi dafa yéeg. suukar sa. début d'insuffisance rénale. nee na le 22 août ñun biñ demee doon ko xool dañ bañ ñu gis ko bëgguñu ñu xool ko. médecin personnel am bi nga xam ne moo koy seet bëgguñu ñu xool ko nee terewul situation mi gën di doy waa di gën a jéggi dayoo mais a autorisé wu ñu leen ci dara ci moom maître ne nag luy jot jot na gannaaw dee. mais nag ce sont ces avocats nañ ko bàyyi ñu gis ko. mais avocat itam mën nañ jox wax mu bàyyi moom it. ñoom ñaar daal ku si nekk le mandat daal di siy dikk le mandat yéene na solution nag mën naa am solution mën naa am nee na Touba xalif ba yóbbante na tàndarma jox na ko ngir mu doog. suukaram si mu yéege. suukar si tàndarma bi. tàndarma moo tax suukar si yéeg. déedéet lu tax suukar si yéeg. non grève de la faim. boo lekkul. da ngay a. ça non ça amène un déséquilibre. hypo hypo hypoglycémie mooy mooy manque de sucre. waaw loolu tamit baaxul. lipo wax. Euh, Simon. je crois que c'est Sey de euh, euh, Horizon sans frontières qui a qui a eu qui a eu ou le diabète en période de. de détention de détention. en tout cas il a été malade. Hmm? il a dit un truc comme ça. il a été malade. Hmm. Ah, ah, le mandat yéene kaay nee na Touba comme joxe na nag xalif bi joxe na tàndarma ndigal la jëfe ndigal bi jib na mu ngi des di xaar na ndax moom Ousmane Sonko dana ko jëfe am déet parce que moo ci des mbir yaa ngi cay loxo mais que jot na si tàndarma bi tamit négam ah négam kenn mënul jot si moom su saa wax na ko loolu suuf saa moo lay tontu suuf saa moo lay tontu nee na Ousmane Sonko ba fii jotagul ci tàndarma bi ah, ndax ndax nag wax fa dëgg neex yàlla dikkagul mi ngi li koy firndeel moo di ba commissaire bu jëppal bëggoon ko jox notification fekkoon këram lu jël mbir mi jox ko préfet bu Dakar préfet bu Dakar jël ko jox ko directeur bu prison bu Sébikotane fu mu nekk nii moom bu fa jógee ñëw rek dañ koy jox li nga xam ne mooy lettre de notification bu koy wan ne retiré nañ ko ci fichier bi bokkatul mënul bokk ci élection yi waaye tàndarma bi jotagu ca ba léegi tàndarma bi. Sébikotane gënul jege Touba. ah tàndarma bi na Touba. moom tàndarma bi kay. lu muy defee ci Dakar nee nañ tàndarma bi mu ngi si Sébikotane di ko xaar. di ko xaar moom. waaw moom mi ngi Dakar fii si ah, ah pour ñu que mën nañ ko gis tamit baa ngi fi. en tout ngi toog di ko xaar. Ah ah? a baissé donc il faut lui donner sucre. pour mu wàcc. Mmh. Oh, ah pour mu yëg. taux de glycémie mais dafa élevé. dafa élevé il faut que mu lekk alors glycémie ou hyper. hyperglycémie la mais mais li ma doon élevé. élevé hyper la hyper la dafa war a lekk dafa war a waaj. dafa war a lekk. pour ah non hyperglycémie moom moom moom lekk non c'est que mu ngi ah. lekk. waaw bu demee hyper. bu dee hyperglycémie mi ngi coop. bu dee élevé c'est parce que suuf si ëpp na. donc lekk la lu suuf si ëpp. hyper c'est beaucoup hypo c'est moins. réeroo daal am na ci wax ji. ah mbaa du manipulation est-ce que du yëkkati réer ñoom ñi li ñu wax xam nañ ko de. non non est-ce que est-ce que. parce que il faut glisser bi moom Hippo ñu juum wax. waaye dama ana ana ana ana leen a dit Hippo ils ont dit Hyper. fekk nag yéen plateau yow si rek les dolli dina. fekk yéen plateau dana juum foofu. ah yéen plateau bi nag da ngeen di topp dossier ba mu sës. nit ku dul juum amul. pardon dama ne yéen da ngeen di topp dossier ba mu sës mi ngi nii. taux de glycémie élevé. élevé la wax élevé nag moom mooy yokk. mooy hyper hyper. moo yokk na ne ah, ah, euh, sais pas. boo lekkul sa taux bi mën na yéeg. boo lekkul. Mhm. loolu médecin yi la wax. médecin waaw docteur Diop après nga bàyyi ñu message borom mbaaw. docteur mhm. Diop ñu xool ndax après man nañu ci andi ay leeral. pour ak daal di si dégg ci biir Ousmane jël na rendez-vous wala nag jox nañu ko date ci lu mu ci manti doon président Macky Sall nee nañu nag déggul benn yoon nag wooteek wàllu gi ñu ngay woote wàllu fu ne. intellectuels yi nga xam ne ñoo taxawal seen coalition nee nañ ko bàyyil waa ji maître Ciré Clédor Ly jël na rajo yi jël na caméra yi yuuxoon na wàllu fu ne waaye président Macky Sall déggu ko de. maire bu Ziguinchor nii. Hmm. ala accu la woote ba tey. mais nag qui peut le plus peut le moins ndegam yóbbu nañ ko fii Dakar hôpital. nañ ko hmm. yóbbu këram mu dund et puis après ñu xool dossier moo xam nga aussi état ak yoon moom amul sentiment la. état mooy décider c'est ça le problème avec la loi la loi et l'état Mhm. y' a pas de sentiment là-bas. état comme ñëpp a ngi wootee mhm. jàmm kilifa yëpp a ngi wax mais ñoom itam nañu doxal jàmm jooju. tribune yéenekaay mooy wax de. nee na bu mu leen bett benn yoon na bu ko avec la loi. tribune yéenekaay ne ñuy seen nii muy ñëw sous contrôle judiciaire lay niru ci kii di Ousmane Sonko. le contrôle judiciaire se dessine pour Sonko le maire de Ziguinchor est présumé innocent le contrôle judiciaire vaut mieux que le port du brassard électronique. contrôle judiciaire bu ñu la ko defee dangay ngay ñëw di signé saa su ne di war na yaa ngi fi. Mm-hmm. ni ko ni ni ko Branco war a defee waaw mu Branco fa lay signé. ah déet <laughs> Branco kay bañ ko génnee réew mi amul fenn fu muy signé. ah mais contrôle judiciaire <laughs> na ne teg ko foofu rek. <laughs> contrôle judiciaire lañ teg ci moom ma def Branco wala. lii tamit. ah contrôle judiciaire daal moo ci gën a sedd ndax boobaa yow di nga nekk sa kër di nga mën a dox say soxla ci dëkk bi waaye nag dossier bi doo ci doo ci waxati benn. ñaar da ngay dañ ko am jur yoo xam dañ la koy jox da ngay ñëw signé dellu sa kër société civile bi nag fu mu nekk nii moom wax fa dëgg neex yàlla critique yéen a kaay critique ne leen boor bu nekk nee nañ am nañu lépp sa société civile dëgg la nee Sénégal gii am na lépp sa société civile suñuy ressources naturelles la société civile bokkut <laughs> critique yéen a kaay nee nañu suñu ressource naturelle. non c'est l'ONG hmm. non ah, l'ONG La Lumière. du côté de Tamba parce que nee na moom jël na ci kenn ba pare nee na ONG La Lumière. si non non j'en connais qui parle société civile du secteur minier. non le ONG La Lumière du côté de Tamba. ci yàlla am na. a bi ay politiciens encagoulé ah. am na ci coloré. am na ci ay dóorkat. c'est vrai. ñoo xam ne nii bu dul politique du ñu dund. am na ci du ñu exister. ah oui. politicien ay nee na ñoo raw politiciens yi société civile. am na borom de. boo képp yéen a kaay laay wax kay mooy wax nee na ñoom ci boppam ay manipulateurs lañ. des politiciens encagoulés opposants qui se cachent derrière le rideau citoyen citoyen rek la ñuy bëggoon di dóor seen i dóor waaw. Mm-hmm. ay manipulateurs et calculateurs froids qui surfent sur les conflits politiques. pour un positionnement social nee na société civile bi plus bonne presse fii ci Sénégal. mais attention Mambaye. ah kan société civile. kan société civile. Hmm. les société civile. les syndicats c'est la société civile. les syndicats c'est société civile. boo société civile ce pas leur rôle. oui société civile ah. nañu woo Birame Seck. forum civil Birahim Seck forum civil politicien nag c'est vrai c'est la les syndicats les avocats. ñaar saa yoo jàllee tableau rek ñu yëngu. l'exclusivité yéen a kaay daal si dikk nee na benn bokk yaakaar présidentielle 2024 Guédiawaye tànn nañu. am nañu seen candidat muy notable yi di imam yi nee nañu wax fa dëgg neex yàlla bu ñu leen di utal candidat na doon d Abdoulaye Daouda Diallo. non ay imam ak ay notable. waaye benn daal lee. man daal li mu li mu bind laa la la laa lu l'exclusif nee na les notables et les imams waxul certains de ah, waxul dee de imaam yi nee na yéen Abdoulaye Daouda Diallo ngeen tàmm imaam yéen waa Géejawaay yi notable yéen waa Géejawaay yi nee nañ seen candidat moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo waaye foofu am na ñoo xam ne Amadou Ba nañu jàppale de ah am na koo xam ne Amadou Ba lay jàppale am na fa waaw boobu boobu sa information. waaye <laughs> wax nañ ko fii kay ba tey. le temps mooy yéene temps mooy yéene kaay nee na Coumba Ndoffène Diouf. cëb <laughs> présidentielle 2024 nee na. bu ah. ci nekk tàccukat. du si nekk seetaankat acteur lay doon. moom Arona Coumba Ndoffène Diouf mii nee na président Macky Sall mii de li ngeen koy gis muy doxal nii yëpp. ay dóor la rek dafa bëgg def si nguur gi ba tey. waaw moom nekkul woon conseiller moom. nee na notre politique d'industrialisation. fera du Sénégal une grande puissance en Afrique mooy wax ba tey Mamadou Fofana. waaw si je suis élu président. toutes les dépenses à la disposition des Sénégalais ku mën. waaw moom lan la doon xelal Macky ba mu nekkee ci wetam ko. waaye léegi kalal ko. ce qui arrive à Ousmane Sonko nee singali la rek. mais nekkatul ah bàyyi jàmbur. waaw léegi moom ah, ah, ah, waaw moom moom xelal. nga nekk nit ki gën de non mais tamit. mais est ce que xelal ko nga la la taxoon nekk ci biir. waay caaxaan baaxul waay. la la taxoon nekk ci biir moom lay diingat. mais rek. est ce que teewul dara le point nee na. le point nee na Fatick. ah doo bàyyi ma ñëw ci ñu dugg ci loolu. Fatick festive et nee nañ jaajëfal nañu Bamba Sarr mi directeur de l' artisanat ñoom nee nañ ko yaay leader sans frontières <laughs> Fadiga ngi doxal fu la neex foo jaar yoon. le point moom day xalam rek. le point nee na. cent neuf boo koy wër ci Fatick Fatick waa dëgg nag juddu gi ca Fatick di juddu jéen dëgg la du cent neuf juddu Fatick la waaw kii moom barki dem nañ ko fa nommé yow waa naaru góor nee na moom ci boppam ah, moom mooy espoir ndaw ñi jàmbur moom mooy espoir Fatick nee na bam Bamba Sarr Bamba Fët Bamba Fatick Bamba Fatick moom mooy espoir Bamba la bàyyi nee na daal moom la Bamba Fatick man waxuma man man le moo wax tamit oh. ma ko waxee ngeen foog ne ah. Bamba Fatick. ñii dañuy perturber sa cours. dañuy perturber sama sama revue. wax waxtaanee naa am le point le point nee na moo nekk Fatick moo moom la mooy yaakaaru ndaw. Fatick li doon sax frontière Fatick am na ci droit. ñëpp xam nañ ne day xalamal. non non non non non lu tax yow waxoo loolu regard. lu tax waxoo loolu. l'exclusive nii wax lu tax waxoo loolu tribune yéen kaay le point mais actualité la moom information boobu la am joxe na ko bamba yéen a ngi assise des médias déjà c'est bien waaw yéen a ngi si assise bi nga xam ne war na am dëpp média bamba Fatick bamba Fatick bamba fépp bamba fépp bamba sar cent pour cent bamba sar cent pour cent Fatick bamba bamba Bour Sine huit heures passées de une minute euh, bamba Bour Sine <laughs> lu gën a fës yow buñ la falee léegi juróom benn weer ñu ne. ba tey Babou Sy la gën a fës ci xibaar yi juróom ñoo faatu juróom ñetti ñoo si jëlee ay gaañu gaañu immeuble bu màbb la maanaam tax ba te Tëngéej fi Ouest sorti neuf ba fukk ak ñett daanaka ñoo nekkoon sa biir ba tax ba di màbb daañu waxtaan it wàllum màngaan gi nga xam ne awul ci yoon gannaaw Fass booy askan waye woo ca golf bu Mbuur quartier boobee. juróom fukk ak juróom-ñeent seeni doom daanaka ñoo demoon bëkkite ba fii France daal di xëddeen amuñu seeni nouvelle askan wa ci boppam ñu ngay woote ak wàllu ngir ñu seetal leen ndëpp la ñu woote ci méccam tasum xibaar bi liggéey bi des naka door ni ki tey jii dinañ teg ci table ji mbooram jafe-jafe nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci méccum tasum xibaar bi la ñu bëgg nag du ñàkk moo di liggéey bu am qualité ay taskatu xibaar yu nga xam ne dañuy def liggéey ba sa nam waree li yéene kaay yi xëy dëxëñ mooy ndaar kepp bi la jotaay xibaar faram-fàcce gi Simon Faye lañ ci àndal ak Mamadou Fofana Asma